بقرباني وجسدي نجد زاد العزيم بعظيمة دنازي فلياك نبي حسنتي عن حسدي إلي ما لم يسأل soxna Oumou ak ajaratu Rokhaya bi te jaaree ci soxna Rabi lu am solo la te yàlla def ñu féete ko dañ koy seedal bu baax kon mbooloo dama gën a teewlu bu baax ci wàññi kàddu yi lu may Serigne Saliou Thioune dugal mooy agsi ci njaboot kon nanu gën a teewlu ndax kilifa yaa ngi nii toog may ko mu ziar si nuyu njabootam jërëjëf suuf ci teewaay bi. kilifa yi ñoo ngi ñoo ngi nii mën nañ koy indil fi mu toog. bismillah na ñëw ni toog. Allah

kon nu dalal Serigne Saliou Thioune ndigal Thank you. Now kilifa yi ñoo toog bismillah na ñëw nii toog علمنا

kon nanu gën a teewlu ndax kilifa yaa ngi ni toog